Maskat makili gas ma ne dafa jiitu biñ naa ne dafa gàmm ma dem fekkuwu ma wàññi koo dem nag ma gis nee na ma gis pénc bi bés dell gi di borom yu bari lool ma waa fii kër mu doon mu ne ma kër sëñ man toog walla géey mi sëñ Basiiru Baara moo doonoon sëriñam nee na Balla musta wax ba wax ci jeex te doxul sëriñ Basiiru Baara sama sëriñ nee na ñoom ñëpp noonu lañu mel Balla Gaye mii damaa dem kaw ci kër Bintu Thiam nit ñi bëri lool kër kër ju bëri nit ñi bëri lool kër kër ju bëri ma jékki-jékki li seen Balla muy def ni loxo yi ci biir nit ñi ma ne ko yow kay ñu la gis Balla muy xaj yi di def ni loxo yi ci biir nit ñi ma ne ko kay nga ñëw fii dafa am solo loolu dafa am solo yooyu yëpp ak cofeel la ak fonkeel nee na yooyu yëpp ak cofeel la ak fonkeel cofeel cofeel ak fonkeel moom mu waxaat ko mu waxaat ko daal sëñ ba daal kii kii ci dëgg sëñ bay. nee na sëñ bay daal mi ngi nangu nekk sëñ bay. nit ñu te moom moo mu ngi moom mu ngi protégé sëñ na sëñ bay mi si sëñ bay si Mansour nit bari ñi tax na mu bëgg a sëñ Basi nanguwul ku ko laal moo tax li ko sëñ bi di wax dégg nga daal. waaw nee na bi sëñ Basi di wax lépp rek mu ngi nii loxo bi gannaaw dàpp rek yow ba dara laal. waaye nag bi sëñ Asi Asi insisté nag ba ñetti yoon. nee na sëñ Bay loolu xam ne ah dina ñëw si loolu gerte bi bàq bal. waaye ñaari yoon yi moom. ñaari yoon yu njëkk yi moom dégg ko. waaw mbokk yi mbokk yi sëriñ bi di leen nuyoo rek Balla Gaye. waaw di ngeen dégloo tuuti sëriñ bi di leen nuyoo rek Balla Gaye Balla Gaye def naa yéen xam ngeen ak sëñ Ahmed Aïdara seen jiif yi. nuyoo li ma moom nuyoo moom siyaare ko. ma wax ko sëñ Mansour li ma yëkkati woon. fekk boobu nag li ma koy wax loolu maa ngi yor kaay bi. boobu kaay bi maa ngi koy wax defal ko jàpp bi rafet rafet. mu ne moom nga ma ne ko mu ngi moom nga yor nii ma ne ko waaw mu ne ma gis. mu ne ma kaay bi ñu nga yor nii ma ne ko waaw ma gis. ma daal di koy jox ma daal di koy jox kaay bi. ma daal di ubbi. nee na mu ubbi njëkk ak xaaj bu digg bi jëme leen lii jëme leen lii naan mbooloo mooy xool leen doom si fal bu ñu def ak rabaay jërëjëfati mu ne ma mbàkk mi lii rek laa bëgg ñu waaye mbàkk yaa baax may leen ñu jàll Tidiane. waaw waaw waaw. waaw. yónnee ma lépp ngir yàlla. incha allah naa la ko yónnee. bu dul taal bi doy waar nga doyoonul waar. xam nga ñaari wax yi wax si biir laaj benn wax la. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. dégg ngeen moom mos a faral di. mbër sëgal tuuti. amiin ba ko wax yàlla na ko yàgg tey soxna naa aw amiin amiin amiin amiin amiin Sarifus jëwriñ moo fi ko la dana doxal rek ci sa tool yi ba faatu loolu lay sax nekk maanaam loolu amin Thank you.